daa leen wax di daa naa leen ko wax ngeen am taw fas rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñu ngi fekk nekk nekk ci liggéey xas xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo ne taw bi ñëpp war nañ cee ñeex ku bëgg sëñ Tuubaa am waaye yéen xaas ngeen am. kon sëriñ bi jàll ak ci jéegim siraat ba tey niñ ko war a gëmee ni mu amee te kenn ku ne ci ñun alquran nee ne da nga jéggi siraat benn nga gaaw ba laajte ko na waaw ana guñ doon wax ñu ne la yow jégg nga ko sa jëf ju baax ji moo tax nag yëgoon ne jégg nga ko am koo xam ne dana yëg ne na ko ndax mooy koo xam ne dafa commencé jéggi siraat rek dal di buuf daanu alaa kulli haal am na koo xam ne mooy raw melax ci gaaw am na koo xamee ne mooy gën a yéex sax melantaan wuy raam wa in minkumu ila wariduha kana ala rabbika hatman mahdiyan suma nunu ji la si ni itaxaw wa nasuru salimina fiha jishan kon tooñkat yi bokkaalekati yàlla yi weddikat yàlla yi ñoom seen jéggi siraat dafa yéex lool nger coono bañ fay jànkuwante dañuy mel ni kuy raam ku buuf rek ni muy yéexee waaye ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñoom moom ñooy gën a gaaw melax sax ni muy melaxee rek demaat ñoom lax bu ñuy jéggi siraat duñ yëg ni sax jéggi nañ siraat dañuy dem ba aljana rek naan waaw ñu dafa sew ba mel ni geenu fas di wax ñàngaay geeg yëpp waaw anamu moom kanaa dafa amut te yàlla dañu ko waxoon kanaa dafa amut ñi leen ah yéen kat jig ngeen ko seen jëf kali seen jëf moo leen jàllale. moo tax sëriñ bi ne war na al imaanu gëm nag bi siraati jéggim siraat ala la ci kaw ki nga xam ne soon xiraat bolom nosu la fii diini ci diina. wax wate moom la dal fa yàlla wa rasul ak yonent bi xaqun dëgg gu wér la fasaare kon nagen ngeen jëkkantu li xëyri soo jëm ci ngën ci ab laaj. mu ne kon jullit bu ne war naa gëm ne dana jéggi siraat képp koo xamee ne nekk na ci diina amaa ku nekk ci diina ku nekkul ci diina yëpp dana jéggi siraat waaye nag jullit moom da ko war a gëm xam nga am na ñoo xam ne gëmuñ jéggi siraat ñooñu nag doon ay jullit parce que gëmuñ ko gëmuñ yàlla sax bay gëm jéggi siraat dafa naa moom ku gëmul yàlla moom mënoo gëm jéggi siraat mënoo gëm aljana mënoo gëm safara mukk day fekk yëpp mi ngi aajara ci nga gëm yàlla gëm ay yëfam kon sëriñ bi nee na war na ba tey li war ci jàmm bi ci ab jullit mooy mu gëm ne jéggi siraatul am la kenn ku nekk sa jëf rek ni sa jëf toll rek noonu nga koy jéggee ci gaawaay wala ci yéexaay mu ne képp ku nosu ci diina daal kon nag ku nosul ci diina moom dafa gëmul jéggi siraat kon kooku bu ko gëmee itam amul benn njëriñ ci moom su ko gëmoon liy tegtale gëm na ko e, mooy mu koy jëfal waaye koo xamee ne gëm na ne tabaarakallaahu dana jéggi siraat moo xam ab chrétien la ku mën a doon rek ab bokkaalikat ku mën a doon rek muy fas ci xolam ne gëm na ko te jaamul yàlla déedéet loolu moom nekkul ak gëm kon war na ak gëm bi siraat yi jéggi siraat alal si ci kaw ki nga xam ne son xiraat borom nosu la fii diini ci diina kon siraat daal gëm ko kan la war mooy ki nga xamee ne dafa nosu ci diina gëm yàlla kooku rek waaye amaa keneen nag moom kooku moom gëm ko warut ko bu ko gëmee itam loolu gëm ak bopp rek la. wax wa te moom kat laa dal ilaay fa yàlla wa rasul ak yonent bi na xam ne xàqun dëgg la kon nag fa saari on na ngeen jàkkante rek li xëyri sooli jëm ci ngën ci ab laaj na ngeen fexe daal boo liggéey bu ngeen di jéggi siraat seen jëf yóbbu leen ci aljana ya te ngeen gaaw dugal jina ku jéggi siraat rek mooy raw nga moo tax na mu teg ci ne wa xalaqa moom yàlla sàkk na aljana te aljana wa naara ak safara aljamil yàlla muy aji rafet ji xaadiratan muy ñaari way teew saari xoo kon nag na ngeen njàkkantoo ilaa jamil jëm ci aji rafet ja te mooy luy indi ji yóbbu leen aljana rek wax wate moom yëjoo soo dana ko pay ibadullahi ay jaam moom yàlla waaye nag bi qadri zaayim kem seenu jëf rek bila malahi ci lurut gën caaxaan sawal falaahi borom texeña fii tafaadulu nekk na ci gë nekk nañ ci biit ak gën la daa najaate fu seenu mucc min naari bàqin ci safaraw yàlla muy aji des ji nga xam ne xala daal kook dana saxal ku ko neex ci safara mu ne ba tey julit bi war naa gëm ne yàlla dafa sàkk aljana ak safara gannaaw bañ jéggi siraat kenn ku nekk boo jéggi siraat da nga xam foo jëm jullit bi bu jéggi siraat dana xam ne aljana la jëm yéeféer bi naka noonu bu jéggi siraat dana xam ne safara la jëm ndax yàlla daf leen bind rek soo ko doon misaal nga ñaar la yoo xamee ne man nga ne bii dex la goo xamee ne dafa sax dafa saf xorom bii dex la goo xamee dafa saf suukar su ko defee nag borom jëf yi nga xamee ne nag dañoo jéggi-jéggi bu gaaw ngir seen jëf yu baax ñooñu dañuy dem ci dex gu saf suukar gi waaye ñi nga xamee nag seen jëf moo tax ñi ram ba ñuy jéggi siraat ñooñu nag fañ jëm mooy dex goo xam ne dafa weex xat kon yàlla daal dafa bind aljana bind safara moom muy aji rafet ji muy ñaar yoo xam ne da koo teewal kenn ku nekk ay bindeef la mu ne ko nag na ngeen jàkkalante dem ci la nga xamee ne moo leen di ji yóbbu leen aljana suñu borom yi aji taaru ja yàlla nag dana ko fay ay jaamam kenn ku nekk sa jëf rek mooy la ma la waxoon léegi rek kenn ku nekk sa jëf moo la yóbbu aljana sa jëf moo la yóbbu safara kon gis nga ko ña dem safara jasa an wi faa xan lu tax ñu dugal leen safara parce que lañ def dafa dëppog dégg nga mbugal ma waaye itam ña dem aljana jasa an bi maa kaanoo yaamaloona ñoom yàlla moo leen dugal ca lam ca mbaaxam ci aljana waaye lañ def ba tey dafa dëppoog maanaam payug aljana rek kon kenn ku nekk sa jëf rek moo la mën a yóbbu kon loolu nag ci bàyyi xel moo tax mu ne nag yàlla dana pay ay jaamam yëpp kenn ku nekk mi ngi lay fayee rek ci sa jëf ci lu benn caaxaan mu ne ñi texe nag ñi ngi gënanteeg ñi texewut ci mucc lu tax ñi gën ñi ñi ñi texe ñi ñi texe di mooy ñoom dañu mucc te ñoom mucc ñu kon gis nga ko ñi texe ci boppam lan lañ gënee lan lañ rawee ñi texe di mooy dañoo mucc ta ñu texe di ñoom muccuñu moo tax ma ne moom yàlla yi joosoo dana ko pay ibaadu laahi ay jaama moom yàlla bi xadri saxyim kem seenug jëf bi laa ma lay ci dul benn caaxaan sawal falaax yi borom texañi moo ñu dem aljana fii tafaadulu aji nekk lañ ci biit ak gënante la daana jaatim fa seenug mucc mi naari baaxin ci safaraw yàlla mi aji des di nga xamee ne xala daa kook dana saxal kon daal ñi dugg aljana ñi nga gënee ñi dem safara mooy seen jëf yu baax yi nga xam ne moo leen tax nag seen jiggim siraat gaaw ñi gaaw a dugg aljana ñee nag moom li tax ñee féetee leen kaw ci ak gën ci ak ngëneel mooy ñoom dañoo dem safara noonu la ñuy gënante kenn ku nekk ba tey sa jëf ci biir aljana bokkut ak sa morom aljana gi nga dëkk wa yóbbuxi dana alak alxamulu jëf fiiha ci ñoom xawman ak ay nit ñoo xamee ne yu laa si moona danañu tëqu asaratan rëccu wala ma ak yadaange am na ñoo xamee ne buñ jégee siraat walaay bu ñuy jégee siraat rek foofu la ñuy des foofu la alako alakoo su ko defee nag ñiy tëqu rëccute ak yadaange dégg nga seen borom bëgg a delluwaat aduna naan yàlla delloo ñu aduna yàlla na leen déedéet bis ñi ngi tey kenn aduna tey kay moom ñi jëm aljana rek ñoo fa jëm ñi jëm safara jëm fa kon nag gis nga ñii ba tey seen jëf moo leen alak ñee lan leen dugal aljana ba tey ñoom it seenu jëf kon wayu bi ko dana alak alxamalu jëf fiihaa ca fiihaa ci ñoom xaw man ay nit ñoo xam ne yu laa si moon danañu tëqoog xasaratan ak réccute wala ma ak yeddaange ñi nga xam ne yowmal xiyaam bi ñuy jéggi siraat dañuy tëqoog leen safara ñu tëqoog réccute réccute ñooñu seen jëf rek moo leen bàyyi ci kaw siraat kon loolu rek mooy tolloog li alquran di wax jusiyan jusiyan mooy koo xam ne dafay daanu ci kaw siraat yàlla di ko bëggal di ko mettital muy dox doxin wu yéex di raam di watatu loo xamee ne yow moo gën a ñaw lañ seet di la mbugal mbugal mu métti suñu borom ci kawam te itam da ngay raam doo mën a daw dégg nga doo mën a xël fekk jullit bi moom mooy raw sa xël moo tax nag mu ne wa yóbbiqu dana xalak al amalu jëf fiiha ca biir siraat qawman ay nit ñoo xamee ne yulaa si mën a danañu taxaw xas xasratan ak réccu wala ma ak yadange waaw juboo ba tey waral nañ imaana sunu gëm yaaw di man ci mbalka ka nga xamee ne kafaaniya fegal na ma alain daa samay noon waraadata mu tàggatal yi ñal ma asaman ñun jamono salaa yàlla jule ali cuninte bu alaaw yàlla bi taslimi gaan dugub sëlmal filaali ak ñooñ wasan bi ak saabaami sayul olomi ñooy borom xam-xam mbalka moom nag nga xamee ne kenn ku gëm mu tari duhoo baadal xuruuji gannaaw seen génn seen bàmmeel ya bii ci man ci ndigalu ka nga xamee ne man na xiwee na ali cunante bil oroj ci mu rañaan jëm asmaani juróom-ñaar wala sa yasmawu du mar mukk alla si koo xamee ne xat sariba naan na minu ca mbalkama falaa si mu ne yow julit bi nag na nga tëqoo kon nag xidmatan liggéey wa xuruba ak jaamu yàlla wuyu turu des na dàq xanu mu wëlis mbalkama bañ caa naan ñaar lañ cay dàq duñ ca naan sa war tidaat borom murtat ci duggoon ci diini ji ba yàgg mu génn wa képp koo xam ne maa jeng na ani sa daal di wëlis mu ne kon ba tey war nañu gëm ne bu ñëpp dekkee am na mbalka moo xamee ne tabaarakallahu yàlla nañ ca naan ñun ñëpp ina antinaakal kawsara mbalka moo xamee ne borom xam-xam yi nettali nañ ne ci xaddis yu wér-wér kook ya koy naan moo toll ak limu biddiw yi waaye moo gën a neex lem gën a weex meew seet wicc ku ci naan dootoo marati faw bépp naqar boo doon jànkuwante ci na kere ba nga ci naanee dangay fàtte jafe-jafe yooyu yëpp mu ne kon war nañu gëm mbalka ma nga xamee ne ñëpp danañ ci rot muy aw xeetam waaye nag ñaar ak ñoo ci du rot moo tax moo ko ci kanam moo tax mu ne yàlla mi nga xam ne moom moo musal ci samay noon tàggatal ma ñun jamono ba kenn mënu maa lor maa ngi dagaan mu julli ci bi julli gu ànd ko sëlmal julli ci waa këram ak sahabaam sëlmal ci ñoom sahaba ya nga xam ne ñooy borom xam-xam borom xam-xam lañ yoo xam ne dañ doon jëfee seen xam-xam mu ne mbalka moom nga xam ne kenn ku nekk da ko war a gëm mu ne xeetu yonent bi bu yomal xiyaamee danañ corot di maanaat naan fa rek ni nga gisee mbalka boo ko wëggee nay daw di njëkkalante ngir seenu mar ni ñi buñ génnee seen bàmmile dañuy mar su ko defee na mbalka moom la ñuy jàdd naan kon gis nga ko yàlla nu ay mbiram de mu ne mbalka la moo xam ne kon xeetam danañ fa rot gannaaw bañ génnee seen bàmmile ñun ñëpp dekki mu ne rot gi ñu di fa naan nag mi ngi amee ci ndigalu suñu borom mi nga xam ne moo may yonent bi mu rañaan xotti asmaani juróom-ñaar biis ni man man na ali bil oroj nee na nag képp koo xam ne naan na ca dootoo marati mukk mukk mukk mukk mukk dégg gis nga mbalka mi ne nag wu ci naan wala mbandi nit ku ci naan heure bu ne naan rek bis bu ne ñaati yoon ngay naan foofu nag boo fa naanee dootoo marati kon moo tax ne wala sa yasma wala si xat sariba minhu ku naan sa ndox ma te bokk ci xëytu yonent bi dootoo marati mukk mu ne kon nag jar na ngay njëkkalante de ndax njëkkalante rek mooy mën a tax nag nga naan ca moo tax mu teg ci falasim xidmatan wa qurba jaam bu ne li ko indi cër na mooy liggéey ak jaamu yàlla liggéey bëri na ay fànn waaye jaamu yàlla moom benn rek la ko yàlla digalee ñii la ko digalee ñu fi jiitoon waaye liggéey nag bëri na ay façon liggéey boo xamee ne daal lislaam dagal na ko rek moo xam métier ak bu mën a doon rek boo xam jàng wala jàngale soo tëqoog moom bu yowmal xiyaamee da nga bokk ci ñay naan ca mbalka moomu te dootuñ mar waaye mu ne yàlla tere na mbalka ma ñaar koo xam ne dafa dugg ci diini ji ba mu yàgg mu neexu mu génnaat ak ko xam ne mosut cee dugg loolu mooy wax an hu yutradu sawur ti daadi wa kullu man maala ani sadaadi ñaar ñi daal mbalka ma di kaw sara déeg ba ah ñoom ñaar ñi duñ ci naan woy turudu des na dàq xanu wëlis de xanu ko sawurtidaat borom murtat wa kullu man ak képp koo xam ne maa la jéng na ani sidaat gis koo xamee day sàmm la nag wi di dem di naan ci beneen balka moo xamee ne warut caay naan dafay jëli di ko dàkku noonu laa amee yomal xiyam koo xamee ne bëgg nga naan ca mbalka ma te booba yaa nga mar te ab yéeféer nga woon wala dangaa murtatoon ni ñuy dàqee nag wóob noonu lañ lay dàqee su ko defee nag nga tëqug mar di yàlkati yàlla na ci yàlla musal wooje ba al imaanu gëm ne annahu naka moom gëm ala salaasati aqsaami nekk na ci kaw ñetti xaaj hendaman fa ka nga xamee ne ala kawe na xawlun wax la wa ixlaasun ak sellal mooy ñaareel bi wa saalisun aji ñetteel seel xamal muy jëf fa man xawaa ku laq jamiihaha yëpp naa la kon mu am al amal mbébétam waaye yas daadu dana dolleeku de ah dana dolleeku de waaye yan yanqusu dana wàññeeku ba tey bi saydil amali nekk na ci dolleeku jëf dolleeku ga moom ma ngay amee rek ca dolleeku jëf ga wa naq si wàññeeku ba tey ma ngay amee rek ci wàññeeku jëf ga kon nag fasit na ngay dolli maa takamil ànd koog matal bil xawli ci wax wa niyati ak yéene fii xayri sunan ci biir ngën ci sun na taraa ci ngay gisee nag sa aadatan texe goo xamee ne tulaa si mu danga tuxoog dana tuxoog alminan xéewalu yàlla ya mu ne ba tey war nañu gëm kenn ku ne ci ñun ne xaaji diine ñett lañ fa yàlla xaaji diine yëpp ñett lañ benn bi mooy wax ju sell wax ju baax wax ju jub beneen bi mooy sellal say cër ci jaamu yàlla benn ñetteel bi mooy ngay jëf rek te yàlla tax looy mën a jëf rek na yàlla tax xawlun wa ixlaasun wa saalisun amal te loolu mooy al imaan ak islaam ak ihsan rek kon daal xaaji diine ñett rek la benn bi mooy wax rek lu baax te jub waaye itam ak sellal sa cër yëpp nga ciy pratiquer te sellal rek te yàlla tax ñetteel bi nag mooy looy jëf rek na yàlla tax mu ne nag ñett yi képp kum nekk ci moom li ngay mbébét adduna ak àllaaxira yëpp wallaahi da nga ko am fa man xawaa jamiha naal amal ñu ne ko waaw ñett yi moom day dolleeku day wàññeekoom mu ne waaw waaw nit ki de saa boo xamee ne rek mi ngi dolli ay jëfam yu baax rek imaanam di gën di yokku waxam yu baax di gën di yokku seelalam di gën di yokku ay jëfam di gën di yokku waaye naka noonu safan bi noonu rek la mel sooy wàññi sa wa dégg nga sooy wàññi ba tey say jëf ak sa sellal dégg nga di ko wettee lu bon noonu ba tey lay say imaan di wàññeekoo say wax yu baax di wàññeekoo say sellal di wàññeekoo say jëf ju baax di wàññeekoo kon gis nga ko euh, kon lépp rek mu ngi ci rek bi di la amali waaye di ko def te yàlla tax dolli am na solo di def lu baax di ko bëril waaye nag te sellal ko dafa ëpp solo kon nag ni muy dollee ko moom iman noonu lay wàññeekoo naka noonu ixlaas ni muy dollee ko noonu lay wàññeekoo jëf ni muy dollee noonu lay wàññeekoo kon nag yas daadu dana dana dollee ko waaye yanqusu dana wàññeeku waaye nag dollee ko rek mi ngi aju bi saydil amali ci dolli jëf ni so jëf gën a bëree gën a sell rek sa imaan ak sa islaam ak sa ihsaan gën a yokk gën a dolleeku sa pay ci yàlla gën a yokk gën a dolleeku waaye wa naqas yi ak manqué mi itam kasaale naka noonu ni muy gën a manqué rek noonu ba tey sa imaan di gën a manqué sa islam sa ihsaan di gën a manqué mu ne kon nag fasit na ngay dolli maa takk mi ànd matal na fexe ba say wax ak say sellal ak say jëf say imaan say fiqh say tasawuf lépp nga fexe di ko matal su ko defee muy doole ko waaye boo ko matul rek man naa gën a manqué mu ne nag su ko defee nag bil qawli na ngay wax wa niyati ak yéene fii xayri sunan ci biir gën ci sunna di maanaa sunu si yonent bi looy yéene na doon rek lu baax looy wax na doon lu baax ndax nee na taraa ci ngay mën a gisee nag saxaadatan ak texe goo xam ne tulaa si mu ci ngay tuxoog alminan xéwal ya kon daal kuy wax lu baax ngir yàlla di yéene lu baax tek ko ci sunu si yonent bi sallallahu alayhi ngir yàlla dong nee na ci ngay mën a gisee ak texe goo xam ne bu yowmal xiyaamee da nga tuqu xéwlu aljani yi te doo tàggoog ñoom mukk kon yàlla yàlla may ñi yéene lu baax di wax lu baax te musal ñu ci seeni safaan ñàkk a wax lu baax ñàkk yéene lu baax ndax lépp bu yowmal xiyaamee loolu rek la alquran doon wax yowma tubla la nit ki lam yéenoon sax yowmal xiyaam doo ko nëbbu ceedu na yowmal xiyaam moom la yàlla wax ne yowma tubla saraayiru danañu feeñal mbóot ya mooy benn wax ya wala jëf ya wala la la jàmm bi pasoon defe ne kenn xamul ko boromam xamul ko loolu yowma tubla saraayiru loolu lay firi te fa maa lahu min quwwatin wala nasirin dégg nga bis la boo xam ne fa maa lahu min quwwatin wala nasirin amoo kattan waaye itam amoo ku la fa mën a dimbale kon nag sa jëf ju baax ak sa yéene ju sell rek sa wax yu baax yi rek ñoo la mën a xettal yóbbu laal jana ba tey mu ne xul waxal wan wi ta nga yéene waa fiix ta nga dëppoog mooy na nga dëppale say mbir yëpp sunnatal musafin ci yoonu kañu nangu ak ramoom ali yàlla na doole nekk ci yonente boobu taslimal karim salaatu wasalaam gi yàlla muy aji tedd mu ne kon tun fa ay danga nga jëriñu da nga jëriñu mi ne fii suratul xasri nekk na ci saaru ñuy wax suratul xasri atat dikk na fa ci biir saar ki kifaaya loo xamee ne doy na sëkk fil àq si ci jàpp lu yonent bi indi watar ki ak bàyyi lam tere li ciy diraay ñeel borom xam-xamuk leer mu ne kon nag ba tey yow jullit bi war nga wax lu baax di yéene lu baax ni ngay waxee lu baax noonu nga war a yéene lu baax sa wax ak daal sa yéene ah mu ne na ko teg ci sunu si yonent bi rek ndax nee na boo xool boo demee ci saaru suuratul asri yàlla wax na wa ma aataakumu rasuulu fa xusuuhu li leen yonent bi digal rek te yàlla ko ko sant dee leen ko def wa ma nahaakum anhu fantahu lim leen tere rek na ngeen ko bàyyi ndax bu ngeen ko bàyyut wattaqu laa inna laaha shadiidul iqaab mbugalum yàlla mën na leen caa fekk mu ne ko loolu doy na sëkk ci tegtal waaye ne nit ki waxtu wu ne nay topp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi tey bàyyi la yonent bi tere képp ku am xam-xamu diraaya mooy xam-xam boo xam ne leer la mu ne war ngaa bàyyi xel loolu kon xul del wax lu baax wan wi ta nga ba tey lu baax waafiq ta nga teg ko ci sunnatal musafa yoonu ko nangu ak ramom ali yana du la nekk ci yonent bi taslimal karim salaatu salaam yàlla aji tedd mu tun foin tun foin kon des na la fii suratil asri nekk na ci saar ubbi suratul asri atta dikk na fa kifaaya loo xamee ne aji doy la fil ci jàpp lu yonent bi indi wa ay bàyyi lam ñu ci diraay di takfiiral borom jublu san bi ñeel bàkkaar ya fal ndax njéggalug yàlla su istixbaali borom jublu lu ko. mu ne xaraamal nañ nga naan nit ki dafa weddi yàlla wala nga koy takfiiral wane ni di daal kii daal ab yéefér la. am na koo xamee ne sax jullit la waaye nag saaxiir sa la nit ñi di xool gis foxom yeeg caaxaani ñi di ko takfiiral mu ne nag loolu dañ ko xaramal ci lislam de ndax booy xool koku njéggalu yàlla moo ko gën a jege ci dem safara. moo tax waxoon naa la nit waroo ko gis lum saayir saayir lum bon bon nga naan kii ab yéefar la bu ko wax sax sam xal waxuma la sa sa xalaat bu ko fa sax wallahi te yónentu nee ne dafa am loo xam ne saa boo ko waxee nit wala nga tumaal ko ko bu ko nekkut te yow xamoo nekkul comme nekkut ko bu ko nekkut yow nekk nga ko soo nit ki dafa weddi yàlla ta fekk mi ngi gëm yàlla kon faw am na ku ci weddi yàlla benn mu doon yow bu ko doonul moom kon gis nga ko kon yàlla rek moo xam mbir yi nañ ko bàyyi ak yàlla moo ngay kéeféeral koo xam ne day def bakkaar waxtu ni mu nekk ca bakkaar rek nga naan waaw kii waaw dafa weddi yàlla wala dafa bon dafa jëm safara waaw di ko di ko xas daal wan daal kii safara la jëm xew na ci rew mi mu ne njégalu yàlla kanaa xamoo ne kooku moo ko gën a jege moo ko gën a jublu lu muy jublu jublu bàkkaar yàlla moo ko moo ko moo ko gën a jublu ndax tey tey rek bu tuuboon dellu ci yàlla jégal ko kon waxara moo araamal lañ takfira di takfiiral si tixbaali borom jublu lisan bi bàkkaar ndax fal xufraanu njégalu yàlla su tixbaali borom jublu ko wajal yàlla na nga def minal waajibi mu bokk ci war di maanaam yàlla na nga ko gëm rek kaw na soxada mooy nekk woy sahid ña sawi xayaatin di borom ak dund inda baqin fa yàlla muy aji des ji nga xam ne sahida teewee na lépp seede na lépp bi xayri risqin ci gën ci wër wërsëg wa bi xayri busri a gën ci mbégte yaax bituhum dana leen ca ñee maxan ñëpp maxan ñëpp ña nga xam ne xiyaarul basari dégg ga ña nga xam ne ñooy tànnee fi mbindee fi mu ne bokk na ci li ab julit war gëm mooy nga gëm ne ñi dee ci xare ñëpp ñi sahid faatuhunna loolu yàlla ko wax wala tahsibanna allazina qutilu amwaatan fi sabilillahi wala tahsibanna allazina qutilu amwaatan dégg nga fi sabilillahi bal ahyaun inda rabbihim yurzuquna farihina bima aataahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna billazina lam yalhaqu bihim min xalfihim alaa xawfun alayhim wa laa hum yahzanun kon loolu da nga ko war a gëm mooy ñoom faatuñ di maanaa ñi ngay dund dund gu neex ca barsàq fa yàlla yàlla daal mu ngi leen di jox loo xamee ne duñ jaaxle duñ tiit dégg nga yalla mu ngi leen di wërsëgal ca barsax ngën ci wërsëg waaye ngën ci mbégte maanaam duñ jàq mukk duñ jaaxle mu ne fi mbindee fi sax dana leen dana leen ñee ci ki sahid bëri na daraja yu mu am même yonentu sax amut ko lu ñuy bëri bëri daraja yàlla may na ay daraja yoo xam ne ñi sahid am nañ ko te yonent yi amuñ ko kon wajaal yàlla na nga gëm wajaal yàlla na nga def minal waaji mu bokk ci yi ñu a gëm kaw na soxadaay mooy nekk ku koy sahid ña sawi inda baaxan fa xam ne sahidaay kook na lépp imaanaa gis na lépp na nga gëm nag ñoom kat faatu ña nga fa yàlla mu di leen wërsëgal bi xëy risqi ngën ci wërsëg wa bi xëy busuri ànd ko ngën ci mbégte yax bitum dana leen ci ñee maan ñëpp nga xamee ne xiyaarul basri ñooy tànne fi mbidee fi yónent yeeg ñu baax ñëpp la leen di yàlla teral ñoom woy saxit ña walaay ñoom sax dañ leen di ñee ak lu ñuy baax baax mu ne wa an arwaaxa naka ruuxi sawi saxaada borom texe baaqiyatun aji des lañu naimatun tey aji xéewu bila aada ci aada li yow mi jëm ba ci bisub sil jalaal yàlla muy borom màgg ki wal ikraami ak terele man mooy ki nga xam ne xat xamaa xaar naa kullee sama lépp bi ixtiraami ànd ko xormal mu nekk ruuxu ñu texe ñëpp mooy ñi nga xamee ne seen roo roo yu texe la ñooñu buñ dindee seen roo yi ñu bàyyi ko ci seen jëmm ndax jëmm moom suuf la rek roo gi nag la yàlla soxla ci nit ki gi nag mën naa tilim waral mu dem safara waaye roo gi mën naa set waral tabaarakallaahu mu dem fa ñuy tuddee aljana waaye mu ne ñi texe di maax naa ñi ñi war a dem aljana suñ faatoo rek bañ nokki seen roo yi seen roo gi dafay bànneexu ci xéewalu yàlla yi niñ ko baaxoo di xamee fii ba kër bis penc di taxaw ba ker ñu dugg aljana nga xamee ne dañuy wax ne maanaam ku faatu rek sa aljana taxaw na commencé nañ lay gis wan di la wan di wan mandarga yi boo texee dee ba tey noonu rek la bu ñu la sulee ba woon la gannaaw rek commencé nga gis mandarga yi kon ëdduna moo tax ñu ne këru njëkkalante la ndax su fekkoon yàlla dafay bàyyi ba dekkal ñëpp ñu doog a xam kan moo texe ku texe de waaye fi ngay texe de yaa ngi koy xamee fi ñu la dugalee ci bàmmeel bi kat ci ngey commencé xamee nag yow mi ku nar a texe di nga yàlla na ci yàlla moo tax ne rooxu ñu texe ba noppi seen roo dafay xéew maanaam di bànneexu ci leer yàlla yi ak mbégteeg yàlla yi ak wërsëgi yàlla yi ci seen biir bàmmeel ya yàlla ubbi leen buntu aljana yëpp ñiy xéew ci niñ ko baaxoo xam bii la xaada xaada mooy ni nga baaxoo xam ne nit ki day ndékk dafay añ dafay reer dégg nga bis bu ne heure bu di ndékki ñoom yi nag bu ñu duggee seen bàmmeel yi noonu koy defee ba kii rek bis pinc <laughs> moo tax ma ne wa anna arwaax yàlla na ci bokk naka ruuxi sawi saada borom tex yi baaxiitun aji des lañ naaimatun tey aji xéew bil aada ci xaada niñ ko baaxoo di xamee céedo noonu lañ koy defee ci barsàq ba kii rek ñuy dugal jana li yow mi ba ci keroog bisu sil jëlaali borom màgg ki wal ikraami ak terale ki man yàlla mi nga xam ne xam xat xamaa moo xaar ku lee sama man borom tuwaa bi yaxtadaami ànd ko xorma dégg nga yàlla dafa xormaal sama lépp xaar sama lépp ba dara mënuma lor tey jii la gën a jëm mu ñëw ci ñi nga xam ne seen ruu dafa texee di mu ne wa anna arwaax naka ruux yi sawi saqaaw borom texee di ña muasabaatun ñu ñuy mbugal lañ de laa turaat duñ fa gis mu ko xalaawal lenn luy neexit gis nga ko kon ñi texee di ba tey seenu ruu su tàggalikoog seen jëmm rek bañ sul jëmm yi yi ci boppam dañ leen di mbugal dañuy yëg mbugal ma dégg nga roo dañ leen di bugal di leen bugal bugal métti nga xam ne duñ gis ñoom seen bàmmeel ba keroog dugg safara duñ gis lenn luy neexit <laughs> loolu yëpp ñoo ko fàggoon ci àdduna yàlla ñu musal kon roox yi ñi texee di dañ leen di bëggal ñi yëg mbugal ma yëg mettin ma su ko defee ñu ubbi leen buntu safara yeeg buntu tàngoor yeeg buntu fitna yëpp ñi jàkkaarloog moom ñi xam ne lii kat mandargaam texee di la ñoo ko liggéey ci aduna te ñi ngi ñi ngi bar sax yomal xiyam soo taxawagut kon moo asabatu ñu ñuy mbugal lañ laaturaa duñ gis mu ko xalaawa leen luy neexit waaw ku gisul neexit nag ko xam ngeen ne yàlla ñu ci yàlla musal julit ñi nag buñ faatoo rek commencé gis neexit ba kere ñi tàbbi aljana yàlla ñu ci bokk woo jaba war na ba bi su'aali ca laaj ga wa fitnatil xabri ak fitnay bàmmeel ba li siy su'aali borom laaj ya wasaa ilaa ñi ñaari way laaj ya nag munkar la ma an nakir ànd ko nakir alayhima yàlla na leen walis ñoom ñaar salaamu baqin sëlmalug yàlla muy aji des mucclug yàlla muy aji des wasakoo tey santaakoon mu ne bokk na ci lu jaam bu ne war a gëm mooy na nga xamee ne yàlla daan la laaj lépp lum la joxoon moo xam xéewal la yaram dégg nga lépp lu la yàlla joxoon daal nga xam ne sàmm nga coon yàlla daan laaj xéwal googu xam la tusaal yéen seen ànd xam war na itam ga gëm ne fitnaay bàmmeel lu am la mbugulum bàmmeel lu am la yàlla nee na wa inna li lasina salamoo asaban doona saalika nag euh, mooy mbugal mu gën a yées mbugulum alaxira moom moom la ñuy tuddee mbugulum bàmmeel wax na ko ci sóoratu tuur wa inna li lasina salamoo asaban doona saalika walakin aksarum laa yalmoona mu ne ñi nga xam ne tooñ nañ yàlla fii cëru na ci bokkaale ko ci weddi ko ñooñu buñ duggee ci bàmmeel bi danañ leen mbugal mbugal mu metti gis nga mu bokk tam mbugalum yamal xiyam kon war na li jaam bi war a gëm mooy fitnay bàmmeel am na de mooy danañ la laaj ba tey waaye ña koy def nag laaj bi mooy munkar ak nakiir di ñaari malaaka yu raglu mu ne maa ngi leen di ñaanal nag musaluk suñu borom yàlla na ko yàlla leen doole musal yàlla na leen yàlla doole muccal ñoom ñaar ndax mission rek la ñuy dox yàlla mi nga xam ne mooy aji da ci tey santakoon bi kon wa wajaba war na al imaanu gëm bi su aali ci laaj ne lu am la muy di la laaj xéewal yi yañ la joxoon yëpp ci àdduna wa fitnatil qabri ak fitnaay bàmmeel ba tey lu am la li ci suali ñeel borom laaj la balaa ñi lay fitnaal kat dañ lay laaj dégg ci coobu rek lañ lay laaj boo ko ñi bàyyi la boo ko tontuwut nag tabaarakallahu duñ la bàyyi ñu commencé la di la fitnaal wasaa ilaani ñaari way laaj nag munkar la ma nakir ànd koog nakir alima yàlla na leen walis ñoom ñaar salaamu baqin mucc lug yàlla muy aji des ji wasakoor tey bi mu ne ba tey woo jaba war al imaanu gëm kon bokk na ci war gëm moo di ne anal xafasa naka aji wattu ji taktubu dana bind masaa lépp lu jëf na ko imruun camsa aw lafasa wala mu wax ko ci kàddoom walay sa yasqutu te du rot mukk la yaa dun dara an xoloomi rabbihima walis xam-xami seen borom alla si ma nga xamee ne yi dana tabe bil xoloomi xam-xam ya mu ne ba tey war na jàm bi gëm ne kenn ku nekk loo wax wala nga jëf ko yàlla boole na la ak yu koy bind muy rëqib ak dara du ko ci rëcc bu dee lu baax ak lu bon yépp bu dee lu baax nag ca sens dañ koy ko yàkkamti bind waaye nag gis nga yàlla nu mu baaxee bu dee lu bon nga def nag mën nañ laa muñal di la muñal ba xam da nga ko tuub soo ko tuubee dellu ci yàlla rek ñu bañ koo bind waaye lu baax moom jamono jo nga koy def wala nga yéene ko rek ña ngi koy bind ca sens kon gis ko lu bon ak lu baax nu ñu wutee kon jàmm bu ne war naa gëm ne daal lu mu wax lu ne wala mu def ko rek malaayka yi bind nañ ko ci téere jëfam loolu nag buy dekki moom lay dekkiwaale loolu nag mooy waral nag jàmm bu ne buy def na def lu baax ah loolu rek lay soññe buy wax na wax lu baax ndax la nga daan jëf rek ak la nga daan wax loolu ci lañ lay mën a atte bu yomal xiyaame nga mën a téye sa téere ci càmmooy wala ci ndeyjoor bu dee lu baax nga daan jëf wala nga daan ko wax bu yomal xiyaame boo dekkee sa téere ya malayka yi daan bind moo lay eh, dégg nga waajal nag su ko defee nga mën a téye sa téere sa wetu bu dee nag la nga daan jëf lu bon la la nga daan wax lu bon képp la bu yomal xiyaame boo dekkee nag noonu ci loolu la ñuy sukkandiku ci nga mën a téye sa téere ci càmmooy dem safara mu ne kon nag amul lenn luy rot lu rut nag ci xam-xamu yàlla bay ko amul lenn luy am ak la malaayka yi def malaayka yay faat malaayka yiy bind la ñuy bind yëpp yàlla xam na ko moo leen ko sant kon nag ñoom amuñ seen xam-xam waaye nag amul lenn loo xamee ne rek ñoom danañ ko def lu rut ci xam-xamu yàlla bay ko yàlla mi nga xam ne mooy kii maye xam-xam yi xam-xam ci moom lañ bay ko kon walay sa yasqutu du rot la yaa dun dara an ulumi rabbihima xam-xam yi seen borom lépp luñ bind rek yàlla moo leen ko binduloo luñ bindu rek yàlla moo ne leen bu leen ko bind ala ci yàlla mi nga xam ne yu juddu dana tabe bi xam-xam ya wajaba war na ba tey al imaanu gëm ne anal malaka naka malak malakul mawti xabada dana faat man xasada képp koo xam ne jublu na duri di ma lor si mbir ba muy aji xalaku muy dee rek dégg wa annahu naka moom malakul mawti yaxbiru dana ngëpp mooy dana faat rek arwaaxal jami ruuxi mbindeef si waa la lurut ka nga ne yufqihi dana ko fi desal rabuhu boromam asamix moom muy aji dégg lépp mu ne ba tey war ngaa gëm ne malakul mawti am na de malaakam dee alisi wukila bikum sum ila rabbikum turjoona moom it loolu lañ ko sant muy faat kenn ku nekk am na dig buñ la bindal kooku tabaarakallahu bu jotee la yastaqiroona saatan wala yastaqdimoona buñ ne trois heures trois heures zéro wallahi duñ la faat deux heures cinquante neuf duñ la faat trois heures un trois heures zéro lañ lay faat gis nga ñoo ñoo ñoo mën a topp seen digalu borom waxtu leen yàlla sant rek waxtu boobu lañ koy def dégg nga laa yastaxiroona saatan wala yastaqdimoona wala yastaqdimoona mooy duñ la faat mukk deux heures cinquante neuf wallahi waaye laa yastaxiroona moom duñ la faat mukk trois heures un xoolal li rek benn minute moo dox seen diggante deux heures cinquante neuf trois heures zéro lañ la war a jël si duñ duñ la faat deux heures cinquante neuf ngir yàkkamti duñ la bàyyi ba trois heures un ngir di la am luñ lay yéexee déedéet foofu ndénkaane xajut fi dara xajut fi lu dul ñu yàlla dégg nga tabaarakallahu may cër boobu kon nag war na ba tey nga gëm ne malaakal mawti képp koo xam ne ñëw na di ma lor si moo lay faat gis nga kon loolu moom daaneel wéyal yàlla ko ko may mu ne xabada man xasada duri moxlika malaakal mawti daa képp ku mu jublu di ma lor si man borom tuwa moo lay alak faat la jël si sa loolu mu ñaanoon ci xasir ak mum yitu yàlla yàlla na nga suul képp ku may bañ ci biir pax ma moo tax ñaare damay faral di wax ne sëñ Tuubaa amatul noonu wallaay sëñ Tuubaa boo ko noonee dëgg doo am ci kaw suuf benn weer billahi la ilaha illa huwa mu ñii du noonu Sëñ Tuubaa noonu yoo xam ne saaga lañ dese ak nangam loolu du noonu Sëñ Tuubaa boo ko noonee dëgg ta mu wér sa xol wallaahi doo gudd fan. loolu ñaan na ko ba yàlla nangu ko kon nag koo gis rek mu muy muy nangam muy nangam wallaahi lancim lu ne mu koy wax sëñ bi nangam du noonu seriñ bi de. addunaa ko jeey rek wala ñi koy fay dégg naan ko waxal ci nangam loolu nag tuddut ba ñàkk xam ki ngay wax rek ñàkk xam li ngay wax ak ki ngay wax rek la. te ñooñu ñëpp nag li tax ñi nekk fi rek ba léegi mënuñee faatu nga gis leen ñuy wax si bi lu ñaaw bis dana ñëw ñëpp ñu ñëw jox seen bopp sëñ Tuubaa wala seen njaboot ci seeni bopp ñooy ñëw jox seen bopp sëñ Tuubaa kon ba tey war ngaa gëm ne daal malakul mawti ruux yi ñëpp moo leen di faat ba mu des ñi fi yàlla bàyyi am na ñoo xam ne ba léegi faatooguñ am na ñoo xam ne ba léegi faatooguñ te kenn gisut leen te ba léegi ñu ngi fi kon ñëpp moo leen di faat ku faatu rek bu laajte ku ko faat malakul mawti la yàlla jox ndigal mu faat ko kon wa wajaba war na al imaanu gëm anal malaka naka malaaka ma malaakam deema xabada man xasada képp koo xam ne jublu na duri di ma lor su muhlika muy ajaalu ko wa annahu nag moom malaaka mi war ngaa gëm ne yow julit bi yaxbidu dana faat arwaxal jami ruuxi ñëpp si wàll si luru ruuxu koo xam ne yuf xii saxal na ko fi rabbuhu boromam asami moom muy aji dégg lépp ba tey wàccal yàlla na nga gëm wajal yàlla na nga def minal waaje mu bokk ci ñu war a gëm kaw na sax bi man nekkuk saxaaba yi ka nga xamee ni yusuuqu dana màngal lii ci man xayra soolin gën ci ab laaj bi aman ànd kook sécurité war ngaa gëm ne xayral xuróon ñooy ngën ci maas ngeen ci seekal su ma man yelihim topp ña leen topp wa man yelihim ak ña leen ming su ma man yelihim topp ña leen topp ba tey alal jamee yàlla nekk ci saaba yonente bépp sarmadan faw rida samih ngërëmal yàlla muy aji dégg lépp di jaay man ci dara jaay ka nga xamee ne yuusu xiru dana tàggatalee ñel ma aju moox mbooloo ya mu ne ba tey war naa bokk ci li nga war a gëm saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi nga xam ne waxtu ne ngën ci li may laaj la may màngal di ma jox te bu ma koy jox dafay ànd ak sécurité mu ne kon li nga war a gëm rek mooy bu ñu la laajee waa ban seekal moo gën ñan ñoo gën ci nit ñi mooy saxaaba yonent bi lii ab xadis rek yonent bi moo xam ne ñi gën ci jamono ji may dund mooy seekal bii mooy ñi ma gëm topp muy saxaaba yi gannaaw si nag ñi leen wuutu gannaaw si ñi leen wuutu ñi leen wuutu taabeena taabeena ba jamono ji sun mag ñu baax ñi kon gis nga kon nag kenn wartu jël mag ñi di leen teg ci kaw saxaaba yi saxaaba yi cër bii dañ koo am ci topp gi topp yonent salal sallallahu alayhi kon nag kenn ku nekk dafa bokk ci li nga war a gëm mooy nga gëm seekal bi gën mooy seekal ba yonent bi doon dund ak ñi ko gëmoon bu jàllee ñi gëm yonent bi topp ci taabixaan yi ña ca topp ña ca toppaat mu ne nag ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal ngërëmal suñu borom mi dégg lépp yàlla ko sot seen kaw ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamee ne dégg nga moo ma tàggatal mbooloo yi di maanaam noonu yi ko jëloon rek yóbbu ko ca géej ga moo taxoon mu ne xayral quroon yi ngën ci seekal ngën ci maas su mooy saxaaba yi su ma mën yëlihim topp ña leen ming mooy ñëw ganaw gannaaw wa man yëlihim ak ña leen topp su ma mën yëlihim topp ña leen toppaat alal jëmee yàlla nekk ci ñoom ñëpp sarmadan fawrida samia gërëmal yàlla muy aji dégg lépp di man ci darja yonente ba nga xamee ne yusu xiru tàggatal na lii ñeen ma aljuma mbooloo muy noon yi nga xam ñoo ko yóbboon ci géej yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tàggatal borom tuba ba mucc ca noonam ya waaye saxaaba yi nag lu ñuy baax baax ñoom ñëpp yemuñu moo tax nag mu cité ci ñi nga xam ne moom ñoo ca gën te ñi fi wutu yonent bi di ñeent saxaaba di fanweeri at mu ne waa abdulu saxaabati ngën ci saxaaba yi dégg nga ngën ci saxaaba yi saxaaba yi lu ñuy bari bari di maanaa ñi ci gën nga xamee ne boo leen limee rek yóbbaale nga ñëpp jarul ngay lim ñëpp donte ñëpp baax ñëpp am ngëneel dégg nga moo tax mu ne wa afdalu saabati ngën ci saaba yi al mutabi'a ñi da way topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam li sil masaya ñeel na borom maya di borom ngëneel ya al xulafaa ñoom doy wuutu yonent ba ci kuutaay lu rafet al arbaxa ñoom ay ñoom ñëpp al arbaxa ñeenti ni rek lañ sidiquhum mooy ka gën a dëggal ci ñoom umrun topp Omar seen soo noorin topp borom ñaari leer ya sawjul bu toli topp dégg jëkkërug Fatimatu man mooy ka nga xamee ne nafa dàq na alaarey ni ñaari gàcc yi. mu ne saxaaba yi toppoon yonent bépp baax waaye ñi ci gën mooy borom gëneel yi xam nga ñëpp am nañ ay may waaye nag may moom ci Abubakarin la fekk baax ak Omar ak Ousmane ak Aliyu mu ne kon borom may nag mooy xulafaalu arbaa ñi fi wutu yonent bi nekk ñeent nit ci kuutaay lu rafet ka ca njëkk mooy Sidna Abubakarin Sidiq mooy ka ca a dëggu ndax moo njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu wootee keneen ka ci topp muy amirul muminin Umar ibn Khattab keneen ka ci topp mooy sonoren borom ñaari leer moo dencoon ñaari doomu yonent bi Umu Kalsum ak Ruqaytu te ñoom ay leer lañ beneen ba nag mooy jëkkëru Fatimatu radiyallahu anha te mooy sayyidna Ali karamallahu wajhahu moo tax sëriñ bi tagg ko ne mooy ki nga xam ne dindi e, ñaari gàcc yëpp di maanaam moo xareek li nga xam ne moo di nooni lislaam ñoom ñëpp ba daane leen gàccal man mooy ki nga xam ne nafa dàq na alxaareen ñaari gàcce dafa tagg Seydina Aliyu daaneel wuy wa mu ne ba tey wajaba war na al imsaaku mooy téye ama sajra walis la xewoon na bay na la si ci diggante gaa ñi nga xam ne dawa ko toroxal nañ man fajra ñi nga xam ne ay kàccoor lañ ndax is ngir ku lu waay din képp kenn ci ñoom ala xaqiiqi nekk na ci dëgg gu wóor alayhi moo kon yàlla doole nekk ci ñoom nag ridwaanu ngërëmul murqi yàlla muy aji tarxiya muy aji yéegal fa moom almuttaqin way ragal ña yàlla waskur kon nag na nga tudd jamiahum ñoom ñëpp bi xayri ngën ci ak tudd na wax ci ñoom lu baax waay wala takun bul nekk ma ko fi abadin faw saanu kuri di borom weddi kenn ca saaba ya mu ne am na mbir moo xam ne borom xam-xam yi dañ koy jàngale booy xool risaala bi rek bokk na ci lam njëkk a jàngale te risaala moom la wëyaat nii rek mooy dañuy tuumal saxaab yi mbir yu doxoon ci seen diggante loolu moom kenn ku ne rek dafa bokk ci liñ lay njëkk jàngal mooy nga màndu ci bu ci dugal sa kàddu bu ci wax dara bul defe ne kii moo nekk ci dëgg bu defee ne kii nekkul ci dëgg comme niñ koy gisee ci nit ñi ñaar merwanto rek wala ñiy xuloo ñiy xeex rek te ñoo bokk pas-pas nekk julit dégg nga nga ciy dugal sa kàddu lu ne nga wax ko mu ne nag la xewoon ca saxaaba yi lu nu mel la waaye nag ñoom kenn ku nekk la xewoon seen diggante a ah, kenn ku nek ci ñoom dëgg gu wóor fi nga teg sa tànk kon nag yow bu ci am benn kàddu na nga ci téye sa lamañ waay téye ci say cër la xewoon ci diggante gaa ñi nga xam ne ñoo toroxal ñi nga xam ne ay saay-saay lañ kàccooroñ te mooy nooni màkk yi kon nag la xewoon seen diggante am mbir la rek xëy na mu yàlla dogal waaye nag na nga ci sàmm sa làmmiñ ba bañ caa dugal lu ñaaw rek lañ ci namu mu kenn ku ne ci ñoom la doxoon digganteem ak moromam ci dëgg gu wóor la ko teg kon nag yàlla doole nekk ci ñoom ñëpp ngërëmal suñu borom mi nga xam ne ñi ragal yàlla ñëpp moo leen di yëkkati jëmee fa moom ne kon nag booy wax ci ñoom walaay bul wax ci ñoom lu ñaaw na wax ci ñoom rek loo xam te mu doon lu rafet bu jeexee nga noppi waaye nag kenn ci ñoom bu ko wéddi ndax kenn ku nekk ala xaqil yaqin kon gis nga ko moom xisa boobu moom def naa ne lu lu lu lu siiw la ci téere fiq yi boo koy jàngal dinañ la ko njëkk a jàngal lu xewoon seen diggante mooy bu ci wax mukk lu ñaaw wala nga kenn wala ngay weddi kenn saaba yëpp daal na ko gëm rek ci sansa wajaal yàlla na nga def minal waajib bokk ci yu war yi inda lay fa yàlla taaxata aynin muy topp ab jëmm lam yëkkun boobu nekkul bilaahi di aji caaxaan kal umara i ni ki buur yi al muminin ña daway gëm yàlla al ulama ni ki borom xam-xam yi man mooy ña nga xamee ne yaamuroona danañu santaane bi buróorin ci mbaax olima moom xamees na ko fa kullu man képp koo xamee ne attan a topp na ay nan jëmm jaahila guddi aji réer fala isaalu du dëñ mukk moom topp moom kooke topp jëmu jooje xaayi fan di aji ragal wa saahilaati aji sàggan mu ne bokk na ci ab jaam war a gëm fa yàlla mooy waxtu wu ne ngay topp koo xamee ne kook du ab caaxaankat booy wut ab sëriñ sëriñ bu mat sëriñ booy wut àndu door wutal bu mat àndu ndoor ndax àndoor bu nekk ñu ngi koy nattee ak kon bokk na ci li war ci jaam bi ci digganteem ak borom mooy ngay fexe nag topp nit koo xamee ne du ab caaxaankat kon nag loo ci déggee koo dégg ñu ne ab caaxaankat la rek bu ko topp bàyyi ko fa. mu siti ci nag ñaar muy kilifa yi moo xam buur yi la ñi nga xam ne buur yi mandi lañ ndax buur yi lu ñuy bëri bëri bul defee ne ñëpp nag dañoo torox ñëpp dañoo jalgati dañoo jubadi waaye kilifa yeeg buur yi adduna yi nga xam ne dañoo gëm yàlla di atti ati bu mandu ak ragal yàlla ci seen digganteeg ñi leen yàlla booleeg ak borom xam-xam yi nga xam ne foo leen fekk rek dañuy digal lu baax te njëkk ca jiitu ca ñooñu kon waxtu ne da nga leen war a topp kilifa yi nga xam ne ay julli lañ borom xam-xam yiy digal lu baax waxtu da nga leen war a topp ndax ñoom ñoo lay génnee ci réer ak lépp luy lëndëm yóbbu la ci ak leer ak gëm yàlla ak topp yàlla mu ne koo xamee ne nag topp nga jëmm ju réer ju xamul dara bu dalay sànq di foo mën a jëm da ragal te ku sàggan ku sàggan dëgg mooy kooku waaw ku topp koo xam ne dafa réer xamul dara te xam-xam ci boppam ki koy jàng dafa bëgg a denc ci réer ngir xam fu mu teg tànkam ndax bu yomal xew mën a tàbbi aljana nga fekk xamee ne jàngu dara xamul dara tegu tànkam ci sunna tegu tànkam ci alxuraan nga topp xam ngeen ne da ngay ragal ndax kooku fi la jëmee mooy safara te itam ku sàggan dëgg moo yow moo tax mu ne fa kullu man képp koo xam ne attaxa topp na ay nan jëmm jaahila guddi aji réer falaa yasaalu moom kookee topp ko moo ko teg boppam du dañ mu ko xaayifa di aji ragal xaayifan di aji ragal wa saahila di aji sàggan sëriñ bi dal di cee teg ne xadiisu kanaa jàngoo xadiisu laa taata deetug topp li maxluuqin ñeel kuñ bind fii maxsiyati bay mooy nag alxaaliqi yàlla muy aji bind ji mu ne xifi kon nag taxawal tawfiiqi sama dëppale mu ne lii ma lay nettali kon nag taxawal seetlu ko yonentu nee na kenn wartu topp benn mbindeef sëriñ ba lum rëy rëy yonent bi lum rëy rëy soo koy topp ba waxtu fajar jot demal nga julli ji comme moom tusubaar bu jotee demal def ko sa digganteeg sa borom daal bu la ci ab sëriñ gàllankoor mu ko même bu ko sant sax yow amal xel dem defi ko kon bindeef kenn du ko topp bay mooy yàlla mi la bind mu ne ko nag na fexe nag dalal sama xel lii ma la wax nga fexe taxaw ci sell ko kon xadiisu xadiisu laa taata deetug topp li maxluuq ñeel ku ñu bind fi ma'siyatil xaaliq hadis bu siiw la bay mooy aji bind ji kon nag fi taxawal tawfiq sama dëppale. wajaal yàlla na nga gëm wajaal yàlla na nga def minal waajib mu bokk ci yi nga war a gëm mooy an nattabia ba nu topp sallafanaa sunu way jiitu ña sunu way dawal ña asaaliha ña de yiw kon ku nekkal mu tabia di aji topp leen jataahumu ñoom ñooñe yàlla na leen fay. alxafuuru jéggalaakoon bi di yàlla an naa jëlee ci ñun ndax mënuñ leen di fay xayran yu wu bëri kama asaalo comme nu ñu dañalee dayraa lépp li lor an huddaahu mu wëlis njubug yonente gi sallallahu alayhi wasallam di njubug yonente bi mu ne bokk na ci li ab jaam war a gëm mooy kenn ku ne loo mën nekk am na ku lu fi jiitoon nekkee woon ko fi mu ne kon nag na nga ci roy ñooñee li nga war gëm mooy kon nga fexe nag di xencu gaa yu baax yu fi jiitoon waxuñ gaa yu bon ñu bon ñi fu ne ku am na ku ko gën a yées ku fi jiitoon ku la gën a baax ci jamono ji am na ku ko gën a baax ku ko gën a jub gën ragal yàlla te jiitoon ko fi kon ñaar rek am yow li nga war a gëm yow jullit bi nag mooy ngay topp yi baax yooyee di leen xencu mu ne nag yàlla muy jégalaakoon bi yàlla nañu leen fayal yi wu bari ndax ñoom kat bi lislaam néewee doole ñoo fexe nag ba dañal lépp loo xam ne xeetu lor la dégg nga mu sëri li nga xam ne moo di njub ga moo tax ma ne jasaahumu yàlla na fay leen alxafuuru yàlla mu di jégalaakoon bi an naa jëlee ci ñun xayran yi wu bari kama asaloon niki ñu dañalee dayra lépp lu lor xana huddaahu walis njubam ga njubug yàlla gi mu jox yonent bi daal ñoom ñoo taxaw temm ñoom gaay yu baax yi nga xam ne mooy sallafana saaliha moo tax ñu war leen di topp ndax ñoo taxaw temm lépp luy lor ak jafe-jafe ak xat-xat ñoo taxaw di xeex di xeex ak lépp loo xam ne dafay liwatoog lislaam rek ba daane loolee ne wal wal wal naturiki na nga bàyyi almira a weerante wal jidaala akuk dagg sante li ilmi haadin jandee ko xam aji gindee ji nga xamee ne an salama wàcc aljidaala dagg sante mu ne yow jullit bi bokk na ci li nga war a am pasteef mooy fépp fu ñuy werante bu fa dem di fa toog sax te yow it bul taamu werante mukk wax joo xam ne amul benn solo wala ngay dagg sante bu ne rek loo war a dagg sante wala nga war ko werante ci surna bi wala ci guddi gi wala ci bëccëg gi fexeel ba yokkoo ci xam yàlla yalla mi nga xam ne moo wàcc ji daal ji daal aw saar la ci alxuraan muy suratul mujaadala dafa bokk ci saari alquran muy saaru dagg sante dagg sant nag waxoon naa leen su ko arab waxee dégg nga bokkut ak wolof wolof tey boo noon dagg sante jàpp ne xuloo nga ci namm bu dee arab nag mën naa doon lu baax mën naa doon wax ju rafet dagg sant la koy tuddee bu dee wax ju ñaaw si dagg sant la koy tuddee bu dee wolof nag tey boo noon ñaar dama leen ñi dagg sante maanaam ñoom day jàpp ne comme wolof la rek day jàpp ne ñaar ñuy xeex wala ñuy xuloo ñoom loolu lañ koy wax kon gis nga ko waaye arab moom boo déggee yàlla qad sami'a Allahu qawla llati tujaadiluka fi zawjiha mooy nit ki bu la sax ngeen di waxtan yéen ñaar dagg sante la ko arab yi tuddee kon moo tax mu ne nag na ngay bàyyi werante ak dagg sante jandee ko xam yàlla muy aji ginde ji ndax yàlla ku ko xam dee doo tal werante ak sante yàlla moom nga xam ne moo wàcc saaroo ñuy tudd ji daal naajeetu di yente naaka alaamal xuyuub yi yàlla muy xamaakoon yu nëbb yi fil bahóori ci biir géej ga waxaada womatal na lii jox ma kan san trésor boo xamee ne bihaa ci trésor boobee ci laa amee mu hóoru hóor canuk hóorul ayni jigéen hóorul ayni nee na ba ma nekkee ca biir géej ga dama doon communiquer ak suñu borom kon bi mu demee ci géej gi ba ñëw la taalif xasida gi na ko wax kon bi mu ba natt bi jeex ci la taalif xasida gi wax na ci biir xasida gi sax yàlla ci kàttanam ci la nangoo jihaatam ji kon booba bi taalif xasida booba nangu na ji ba noppi ba dellu ci tukki moo tamit ne maa ngi leen communiquer ak yàlla moom mii xamaa ko ñu nëbb yu fàdd yëpp kooku wumput yàlla yàlla xam na lépp ba ma nekkee ci géej gi dama doon communiquer ak moom waaye may na ma trésor ma ndàmb di banque xam ne ci banque boobee ci la ma yàlla defalee ca lu góorul am ko moo tax ma ne moom yàlla ma ko xaade woo matal na lii jox ma kansan trésor boo xam ne bii ca moom mu xóoru xóor ci la laqee canu ay nii naa jeytu diyante naag man yàlla mi nga xam ne jàlla jomb na anil misaali walis ñi di ko misaal waxaade wamatal na lii jox ma maa xaaba loo xam ne ump na an am saali walis samay morom samam kem nee na diyante naag borom diyante goo xamee ne wallaay yàlla moom de amul kenn kuñ koy misaal ndax jomb na ñi di ko misaal waaye ci biir diyante googu de yàlla jox na ma loo xamee ne ku ñuy tudd di ma tudd maanaam ump na la xaaba mooy loo xam ne jàmm ko mos a gis ba ko xam toujours jàmm waxoon naa le day xam dara bëgg koo gis wala ma gis dara bëgg koo xam waaye may sañ Tuubaa yi jaam xamut ko te du ko mos a xam jaam gisul ko te du ko mos a gis moo tamit di naa suñu borom mi nga xam ne jomb na walis ñi di ko misaal yàlla dafa bokk ci jomb ci moom mooy kenn du ko misaal yàlla moom bi muy diyanteeg moom nag daf maa womatal loo xamee ne fàddu na walis samay maram doomu aadama rek léeg-léeg ngay diyanteeg moom ci téléphone mu jox la loo xam ne sa xol ca sedd waxuma laa nag jaam bi nga xam ne diyanteeg yàlla ci xalimaam di tagg yonent bi di ko wéetal di julli ci yonent bi kooku de tabaarakallahu nee na yàlla jox na wa qaadili ma qabaan amsaali asaluhu salaata bi taslimi ala allazi minhu bihi taxlimi sayidina wa sayqina muhammadi wa alihi wa saxbihi walhumadi asaluhu moom yàlla ñaan naa ko salaata julli gu tukkee ci moom bi taslimin gu ànd ko sëlmal mu julli ko ci yonent bi sallallahu wa sallam mi nga xamee ne taalimi sama jàngale minhu mu ngi tukkee ca moom bihi ci barkeem sayidina kooku mooy sunu sang wa sayxinaa ta doon sunu sëriñ muhammad yi turam di muhammad wa ali yàlla yàlla julli ci waa kër wusama bi ak saabaam yëpp wal humadi ak ñi sant yàlla ñëpp nee na maa ngi tëj xasida gi nag di ko tëjee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ci doole sant sama borom kon nag maa ngi ñaan julli gu tukkee ci yàlla ak sëlmalam mu julli ko ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xamee ne ci dara jam de moom yàlla li may jàngale ci moom lay bay ko waaye ci barke bi yonent bi ci lay jaar kon lépp luy tukkee ci yàlla rek muy ñëw ci sëriñ bi rek yàlla da ko daf cee def waasita yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ba ci yurdatu almanqos bi ko yàlla di jox sëriñ bi yonent bi la ko jox mu jox ko kon nag yàlla yàlla julli ci yonent bi nga xamee ne sama njàngale mu ngi tukkee ci yàlla di jaar ci yonent bi kooku nag mooy sunu sang di sunu sëriñ turam di Muhammad gis nga sangam la sëriñam la sëriñam la waaye itam la yàlla yàlla julli ci waa këram ak i saxaabaam ya ak mboolem ñi sant yàlla kon danaa ñaan julli ak sëlmal daan alal si yàlla julli ko ci kaw yonent bi nga xamee ne min hud mu ngi tukkee ca moom yàlla bi ci darja yonent bi taalimi sama njàngale li may jàngal nit ñi yëpp te xasidi gi genn la ci loolu ci yàlla ko jëlee waaye mi ngi jaar ci yonent bi sayidina yonent bopp mooy sunu sang ñun sëñ tuba wa sayxinaa tu doon sunu sëriñ ñun sëñ tuba muhammad yi turam di muhammad wa ali yàlla yàlla julli ci waa këram wa sahbi ak yëpp wal humudi booy sant yàlla ña mu ne subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil izzati muy borom te danga may si foona wala si lépp luñ koy melal di ko nirule ci ay doom ak ya caaju wa salaamun jaama alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mos yónni wala am du melu sax dàkk rafet lii aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin muy borom bi fi kon nag maa ngi tudd selluk suñu borom ak màggaayam yàlla mi nga xam ne mooy borom tedd nga maa ngi koy sori lépp luñ koy melal ci ay doom ak i caaju jàmm yàlla nekk ci mboolem ku yàlla rafet aji sax la yàlla muy borom bindee fi alhamdulilahi rabbil alamin kon nag tabaarakallaahu xasida gaangoog di faydul xaniyul ni di xasida goo xam ne képp ku bëgg yegg ci yàlla boo tëqoog moom ci jàng ko rek di ko setantal kon ni ñuy durusee xasida yi nag manes na ko durusee waaw ah, moom paakam ñaari bor la manes na ko jàng di ko durus mu mën laa yeggale ci yàlla kaw na ni saami saa ihi baabartiqaa la ko tuddee nga xam ne ki bëgg a jëm ci yàlla waaw ah, ki bëgg a jëm ci yàlla sooy jàng xasida gi da nga jëm ci yàlla. tuddee na ko iraaxatal unaasi nit ñëpp mu doon seen naflaay naflaay mooy loo xam ne soo ko amee rek dootoo yëgati coono xasida gi da ci bokk. ku koy jàng ba tey da nga mucc ci lori kàccoor yi ak saytaane gis nga ko. ku koy jàng itam yàlla tëjal la bunti lor yi wubbil la bunti yiw yi. tuddee na ko ba tey iraaxata subaan yi mooy waxambaan yi nga xamee ne tabarak la dañoo bëgg a laxasu jàngi ak ya wala bëgg lu baax. suñu amee xasida gi rek eh, noppalu nañ lii na ko saadatul muridi taalibi bi ko am di ko jàng dana texe mucc ci loruk seytaane tuddee na ko ba tey mu doon loo xam ne dafay saafara dégg nga mboolem nit ñi nga xam ne waxul sax jullit ñi waaye nit ñëpp lay saafara wa kawnuhu li jumlatin naasi sifa min kulli ma yudru hay sukus fa fu ñu koy jàngee rek ña fa teew yàlla saafara seen jàngoro ya waaye ñaan na yàlla mu doon ki koy jàng bu ko fekkoon ci nelaw yoo xam ne nelaw yu métti la muy ngëmmintu xol ki koy jàng suñu borom génn ko ci ngëmmintu yooyu ndax nit ñëpp léegi dañuy nelaw rawatina seen xol yi waaye ñaan yàlla ki koy jàng yàlla may ko xëbool nim nangoo xasidi gi yàlla nangul ko ñaan yàlla ba tey xasidi gi nekk fu waaye mën a dal ci ëdduna rek ndax ëdduna yëpp ay dal waay la su ko defee xasidi gi doon sa texe si boo ko amee ci ko jàng kii tukki ak kii dëkk ci këram yëpp ñaan yàlla xasidi gi barkeeloo noonu wa an yakuna furatal mawatini fawsan li kulli rahilin waqatini ñaan yàlla ñaar Eh, yoo xamee ne am na lu mu ci jiital mooy dafa dafa njëkk ñaan yàlla mu xasida gi mu doon xasida guñ barkel guy jëriñe nga xamee ne ku bëgg yàlla ak yonent bi doon xaritub yàlla ak sopem da nga mën a jëriñu ci xasida gi waaye ñaan na yàlla ñaar ñaari nit ñoo xam ne daf leen ko jagleel mooy ki bind xasida gi wala mu di ko jàng di ko durus dégg nga ñaan na yàlla wa an yakuna nuura fil makaatibi mutiba nafsay xaar il wakaati bi bakkanam ku ko bind dana tey ci bind gi mu ko bind waaye ki koy jàng ba tey dana tey bakkanam ñaan na yàlla ba tey ki koy jàng mu yóbbu ko aljana waaye itam mu defal ko ngën ci sécurité ñan yàlla ki koy jàng suñu borom musal ko seytaane yooyu yëpp da nga koy topp ba yàgg boo deme ba ci kanam da nga dégg mu ne euh, yaa rabbana bil mustax bil mustafax bal san nisaam wajalhu li baaba yaa dikal ansam yàlla xasidi gi na nga ko def muy buntu sa xéwal yi gën a màgg kon ki bëgg xéwal yàlla yi gën a màgg booy jàng xasidi gi di ko ci taataan yàlla defal la ko wax na ne xasida gi lépp yàlla nangu na ko màggal ko yaa man li wajikal karimu nusima sa nasmu liskur kullahu wa asima defe naa ne xasida e, yu yu demee nii lu jafe la nga gis ko maanaam xasida goo xam ne bala moo tàmbali xasida gi ci boppam dafa ñaan dafa ñaan ni bëgg xasida gi dégg nga tabaarakallahu ki koy jàng suñu borom di ko defal te defe naa ne lii mu ci ñaan ñaan mantu génn lii lii moom ku ko am defe naa ne amatoo looy soxla bu dee tiraange eduna wa kawnduhu muxriya man xawaahu bi bi yax saa bi maa yax ku koy jàng foo dem yàlla fekk lu fay teranga bi teranga na laaxira gis nga kon yépp di wane tedd nga xasida gi ak màggayam ndax dafa jëm ci wàllu xaqida ak lu ñuy tuddee fiq ak tasuuf da ko rabbi rabbi woo xam ne ki koy jàng mën na ko jàng sax te du xam la muy wax waaye nag xam lu muy firi dafa gën ndax ci ngay gën a mën a teewlu maxnaa bi ak yi nga war a gëm te mu wax ko ci biir yëpp ndax su ko doomaadu yi gëmee rek yàlla mën na ko am musal ci seeni safaan waaye su ko gëmu rek seeni safaan mën na koo dal te du ko yëg kon lii xam-xam la boo xam ne sëñ bi da ko doon leeral goo xam ne daal ci def na ci leer goo xam ne nit mën na koo jàng yàlla mën laa xëcc nga gëm ci mi wax ci biir yëpp te doo xam sax maanaam bi li ñuy wax ndax waxoon naa leen ne sëriñ bi yàlla da may ci ay tawaalifam yi nga xam ne xam-xam lañ sax bul defe ne da koy jàng rek ngir xam même di ko jàng nii sax di ko durus dafa am solo parce que dafa am leer goo xam ne lu mel ne tasuru si xaar boo koy jàng di ko durus da yi nga xam ne sax moo jomb ci yàlla da koy dàqal yàlla te doo ko jàng doo xam li muy firi melokaane yi nga xam ne tabaarakallahu dafa sax ci yàlla da nga koy saxalal yàlla dégg nga te doo ko saxalal keneen nga xam ne yooyu leer la gu lay xëcc di la jëmee ci wàllu googu leer la gu lay xëcc di la dàqal wàllu gële lépp luy bokkaale yàlla yàlla dal ci génne te pourtant xasida gi durus guñ koy duus rek dafa am leer gu lay def leer gu lay borom di boole leer gi ci boppam moo lay xëcc di lay orienté moo boo xam ne léeg-léeg du géeju ci xam-xamu tawhid wala fiq wala tasu waaye boo gisee dafay sàmmanteeg sariya ak xaqiqa parce que xasir yi muy durus la moo xam xasir ak xam-xam yi la wala xasir ak mun naa jaadi tagg yonent bi julli ci yonent bi yëpp sëñ bi dañuy leer goo xam ne ki koy jàng daf lay noppal ci wàllu jaamu yàlla waaye itam daf lay musal ci wàllu mooy yàlla ba yoon yooyu yëpp doo ci teg sa tànk kon xasir yi li ci nekk ci ay ngëneel ak njëriñ kenn xamul nu toll yëpp moo xam xasir ak xam-xam yéeg xasir yi nga xamee ne nekkuñ xasir ak xam yëpp ci ku koy jàng bu ko bu ko jàng rek donc comme li ma la waxee léegi tasawudu xalaat tasawudu baan bu ko rek ngir na xasida xam-xam la du ma ko jàng waaye même sax di ko durus dafa baax durus ku nii rek dafa baax di jaar ci baat yi di ko wax donte sax seetantaloo ko ngir di xam lu muy firi waaye ba nga xamee lu muy firi wala nga bañ koo xam di ko jàng nii rek dafa doon leer goo xam ne daf lay xëcc pour nga man di gëm lépp lu yàlla di wax dégg nga ci alquran jëmale ko ci jullit ñi wala lépp loo xam ne mi ngi koy wax jëmale ko ci ay yéefar pour nga mën a gëm yépp li ci feeñ ak li nga xam ne mooy la ca nëbb te ñëwagut kon nag tabaarakallaahu xasida gaa ngoog yal nañu ko yàlla nangul te nangul leen ko te defal ni ci dégg ak topp defal na ci dégg nga tawfiq ci saayir ak baatin yokk ci suñu xéwal faw ci saayir ak baatin yal na yàlla tabaarakallaahu may ñi ci lu koy suñu jot ci lépp loo xam ne sëriñ bi ñaan na ko ci biir xasida gi ci képp ko xam ne yaa ngi koy jàng moom xasida gi wala nga bind ko wala nga di ko jàng wala nga di ko jàngale kon xasida kenn ku nekk war na cee am cër bu yaatu da ngay xool rek boo mëntu dajal yëpp nekk ci benn nga jàng ko wala nga jàngale ko wala nga fexe nga bind ko yooyu yëpp tabaarakallaa wala nga fexe ba am ko wala nga fexe ba am ko jox ko keneen mu di ko jëriñoo tabaarakallaa yàlla na yàlla defal dégg ak topp defal ñu tawfiq ak taysir in uridu ila lislaaha mastataxtu wa ma tawfiqiya ila billahi ali tawkatu ilay unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu subhanaka la ilma lana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim